salaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu nu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turu yàlla borom bi bëgg ñépp nangu yoonu njub bi mu tëral am na nanu mbégte ci li nu mën a teewaat fii di àddu ngeen di déglu seen émission yoonu njub dañu daldi wéy rekk ci sunu njàng yi jëm ci fukki ndigali yàlla yi émission bi weesu gisoon nanu li yàlla wax ci ndigal lu jëkk li ne bul am yeneen yàlla ndare man mu nekk santaane bu mat a bàyyi xel ndaxte ay sang moom soo leen amee li wér mooy dinga jeng ndaxte kenn mënula jaamondoo ñaari sang faaw nga bañ ki bëgg ki ci des walla bokk nga jàpp ci kenn ki xeeb keneen ki muy lu wér ci dëgg yàlla bëggul kenn jël ndamam li mu yelloo moom képp di ko jagleel keneen kenn képp ki ñu war a jaamu moo di yàlla ndaxte keneen sàkkunu ku dul moom te lu wér mooy yàlla dina àtte képp kuy jaamu walla màggal ku dul moom moona teewul mu am ñuy wéy ci jaamu seeni moroomu nit am it ñuy defar ay xërëm di ca nax seen bopp tey nag dañuy sukkandiku ci ñaareelu ndigal li naan bul sàkkal sa bopp xërëm am na it ci mbind mi fu yàlla ne man maay yàlla aji sax ji loolu mooy sama tur duma jox sama ndam ak sama teraanga xërëm yi laaj bi nu mën a laajte moo di lan mooy xërëm kàddug yàlla dafa ne bul sàkkal sa bopp xërëm di ko nuroole dara lu nekk ci kaw asamaan mbaa ci suuf mbaa ci ndox yi suuf tiim buleen leen sujootal te bu leen jaamu kon nu dégg ci loolu ne xërëm mooy lépp lu ñu yat walla ñu tabax ko mbaa ñu taar ko ba mu am jëmu lenn lu nekk asamaan ci kaw suuf mbaa ci biir suuf ba noppi di ko sujootal ak a jaamu di ca yaakaar ndimbal ak wàll waaye xërëm yemul ci nataal yi ñuy yett ak euh, xàmb yi ñuy def ci yenn bërëb yi di fa tuuru ji lépp luy dox sa diggante ak yàlla rekk mënees na ko woowe xërëm gisees na nit ñoñ futbal mooy seen yàlla ndaxte football a leen gënal lépp gënal leen yàlla sax su dul football mën naa nekk leneen loo xam ne dafay dox seen digganteeg yàlla nga xam ne duñu sax am jotu kàddu yàlla ba di ko toppatoo nga gis nag ñeneen ñoñ galaaj yee di seen yàlla loolu di wone rekk ne yàlla doyu leen ndaxte soo takkee gàllaaj sàngam bés bu musiba teewee ba yàlla def nga rëcc ca li wér mooy sama galaaj gi ngay wax di ko ndamoo kon leer na na foofu moom yàlla bokk fa ñenn ñi alal mooy xërëm bi dox seen digganteeg yàlla wuutu ko ci palaas bi gën a kawe ci seen tund bu ko defee ñu àttana dugg ci lu neexul yàlla ngir am alal walla yokk seen am-am ndax alal ju ni men du xërëm ah ndax moo fees xol bi ba tax laa mën a lëkkoo ak i xërëm ngir am mbaa yokkule moona yàlla képp moo di ki waroon a fees xol yi ñu di ko jaamu ak a màggal moom képp te yaakaar lépp ci moom kenn xërëm day soreel nit yàlla ba tax na lees war moytu la yàlla àttu na ci doom aadama yi ni mu koy defe naka jekk ci lépp lu ko mën a lor lan moo tax yàlla àttu mbindeefam yi ci ay xërëm ndaxte xërëm boo gis ay raba nga laxasu ca gannaaw te rab yooya seytaane lañuy liggéeyal kon ci ñiy jëfandikoo mbir yooyu seytaane mooy kiy fas ak a fecc di joxe di xañe bu teyee mu def ci ñoom luy samandaay yiw bu ëllëgee mu indil leen safaan xarit yi ñuy déglu su fekkee ne yàlla mën na te genn lëndëm nekku ci moom kon lan la nit ñiy wuti ci xërëm yeeg yu ni mel li ko waral mooy nit dafa gumba ci wàllu baatin waaye kàddu yàlla moom leer na nàññ mu ne bu ñu fekk ci seen biir kenn kuy jëfandikoo meccim gisaane kuy xool ci biddéew yi di wax li nar a xew kuy luxus mbaa ñeengo mbaa kenn kuy seetlu ci ñiy wax ak jinne yi walla di gisaane bu kenn wax ak néew yi ndaxte képp kuy def lu ni mel borom bi sib na ko kon ñiy jëfandikoo xërëm yi mën na am dañu fekk seeni maam daan ko def walla boog ñu nekk rekk nit ñu cey wuti kaaraange ak jàmm joo xam ne saxul ci loolu bari na li ñuy gis nit di jéem a dalal xelam di tuuru ji ci xàmb yi mbaa mu jublu ci yeneen xeeti xërëm noonu mu ngi dugganteeg seytaane mënees na koo xam wala ñu ñàkk ko xam seytaane nag may leen luy samandaay tawféex doole mbaa bayre ñi amul ak ràññee foog ne yàlla barkel nit ñooñu déedéet mbiri xërëm rekk la waaye ñi ëpp ci nit ñi dañu ràññewul lu jóge ci yàlla ak lu bawoo ci seytaane mi nëbboo xërëm yeeg lu ni mel kon nanu bàyyi xel ci ne yenn saa seytaane du neex a ràññee ndaxte day mbubboo malaakam leer yàlla nag moom aji leer la te genn lëndëm nekkul ci moom du leer ak di lëndëm mukk mbokki déglukat yi lees war a xam mooy seytaane lu mu la may bés dana ñëw mu wex la xaat waaw dees war a bàyyi nëpp nëppal bi dafa jot ñépp xam ne seytaane sang bu soxar la lu mu la may na la wóor ne dina jëlaat ci yow lu ko ëpp fuuf te li ci doy waar moo di yàllaa ngi xaare xërëmkat yi kër goo xam ne ma nga ca déegu safara ak tamarax bu dul fay mukk yàlla aji sax ji yàlla ju fiir la te it sellaayam ak njubteem ñoo tax du ñàkka daan ñiy fexe jagleel ndamam xërëm yi noonu yàlla nee na dina leen du kon gis nga ne li seytaane bëggal doomu aadama yi mooy yàqal leen tey ak ëllëg kaaraange ak jàmm ji mu lay may ci xërëm yi jaru ko ndaxte saxul bu saxoon kon bu ca gaañi demee benn yoon bàyyi ko waaye dañu koy def ak a defaat te nañu cay gën a yàgg xërëm ya di leen gën a njat mbind mi nee na sarax yi ñuy def bu ñu mënoon a sellal ñiy jaamu benn yoon ba faaw kon dinañu leen bàyyi ndaxte dootuñu am yeraange ci seeni bàkkaar moo tax yéesu Kirist ne dama wàcc ngir def sa coobare yow yàlla mu dëppoo ak li ñu bind ci sama mbir ci téereb yoon wi te ci li kirist def coobare yàlla bi mu joxe yaramam sarax benn yoon ba faaw moo tax nu sell ci bàkkaar noonu ñi ñuy selal ci benn sarax rekk la leen yeggalee ci mat ba faaw kon yow mi ragal ak wut jàmm taxoon di topp xërëm yi xamal ne yaa ngi leen doon jaamu bàyyi yàlla waaw ana kon lan mooy saafara si mooy pexe mi yàlla joxe pexe moo moo di deretu yeesu kirist ji tuuru benn yoon ba faw wolof njaay nee na safara ndox a koy fay bi yeesu du dund ci kaw suuf wone na ay yoon yoon ne moo ëpp doole rab yeeg jinne yi ñuy ragal bay giifal seen mer di leen jaamu benn firnde rekk ci biir firnde yu bare yi nekk ci mbind mu sell mi mooy dafa am bés yéesu dem diiwaanu waa serasa mi ñuy wax tey yordaan bi mu àggee nit ku rab jàpp kar ko waa ji nag ca sëg la daan fanaan kenn amul woon kàttanu téye ko ay yooni yoon daan na dagg buum ya ñu ko daan yeewe mu ngi àndoon ak doole joo xam ni jéng yu ñu ko jatange mu damm ko yaramam wépp mu xotti ak ay xeer keroog nag mu séen yéesu daldi daw si sukk ci kanamam ne ko lan nga may fexeel bul ma mbugal ndaxte yéesu dafa ko ne woon yow rab wu bon wi génnal ci nit ki noonu rab ya génn nit ka dugg ca mbaam xuux ya fa nekkoon ñu daldi bartalu daanu ca dex ga lap fa mbaam xuux ya nag matoon nañu ñaari junni noonu sàmm ya daw ca dëkk ba ak ca àll ba nettali ja mbir ma ba nit ñi ñëw di seet xew ñu ñëw nag ci yeesu gis ka rab ya jàppoon toog sol ay yére te ànd ak sagoom ñu daldi waaru ci dëgg-dëgg loolu jar na waaru yeesu moo ëpp doole rab yeeg jinné yi ngay ragal saafara si mooy pexe mi la yàlla jox ngir nga mën cee génn pexe mi mooy borom bi yéesu mi ëpp doole seytaane ak rab yépp moo tax yéesu mënoon a wax jàmm laa leen bàyyeel sama jàmm laa leen jox jàmm jaamuñu àddina walla xërëm yi mënula joxe bu leen jàq bu leen tiit su fekkee ne danga nekkoon ci mbiri xërëm ba sore ci lool sax bul ñàkk yaakaar almasi bi yéesu bëgg na laa teeru tàggale la ak rab yi laxasu ci xërëm yi gannaaw ga dina la fekk barkel la teg ci soo nangoo wëlbatiku ci wekku ci moom kese bul mel nag ni mbokki waa ji yeesu wéraloon ci nettali bi ñoom ba ñu agsee ba gis waa ji wér peleg santuñu yàlla ci seen mbokk mi dofoon te léegi mu wér waaye dañu ne yéesu mi ko xettali tàqale ko ak i rabam sorel sunum réew ñu dàq yéesu aka ñoo goradi waaye ba tey noonu la nit ñi mel ba tey yéesu dafa leen bëgg a tàqaleek seeni xërëm ak rab yi ci laxasu noot leen waaye dañuy bañ kon ñoom it dañu dàq yéesu fat ab sàcc akub sàmba booye leen gënal ñuy fat almasi bi ak ñi koy topp wante yow mi bëgg rëcc ci xërëm yi ak mbugal nga ñuy jur ëllëg su fekkee ne soxal na la dëgg xoolal jàkk ci yeesu nga nangu ne jenn yàlla rekk am te dafa sell ba mënula dend ak lenn walla kenn ku sellul noonu nga gis itam ne amul nit ku sell ci bëti yàlla ndaxte ni ko mbind mi waxe ku jub amul du kenn sax ndaxte ñépp bàkkaar looloo tax pexe mucc mu bawoo ci nit amul ndegam yàlla ku sell la nag faaw mu àtte bépp bàkkaar nun amunu menn pexem musal sunu bopp ci àtteb yàlla bi wara dal ci sunu kaw ndax sunu bàkkaar waaye sant yàlla ndaxte yàlla ci boppam ubbi na bunt bu ko nit mën a jege ci kaw ngëm rekk pexe mi yonent yépp seede nañu ne mooy deretu yéesu kirist ji tuuru ngir musal képp ku ko gëm waaw yeesu mi mësula def baakaar tuur na deretam ju sell ngir fayal nu sunu mbugaluk baakaar yéesu almasi bi dee na ci kaw bant ba ci sunu palaas ngir musal nu ci àtteb yàlla bu jub bi mel ni xar ma deewoon ca kaw rendikaay ba ca palaasu doomu yonent yàlla Ibrahima wante xabaar bu baax bi nu yàlla jagleel yamu fa ndaxte mbind mi nee na Yeesu Kirist dee na ngir dind sunuy bàkkaar ni ko mbind mi tërale suul nañu ko mu dekk ca ñetteelu fan ba ni ko mbind mi tërale waaw fayal nu sunu boru bàkkaar a tax almasi bi yeesu tuur deretam ca kaw bant ba ndeketeel yéesu firndeel na bu leer ne yàlla nangu na deretu yéesu ni sarax bi nu mën a selal ci bépp bàkkaar yéesu noot na dee bàkkaar ak seytaane miy làqu ci rab yi ku wekk sa yaakaar ci keneen walla ci leneen yaa ngi sàkkal sa bopp ab xërëm ndaxte mbind mi nee na jenn yàlla képp moo am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 ndaxte gannaaw ba yéesu tuuree deretam ngir fayal nu sunu boru bàkkaar te mu noot dee ba dekki léegi soo ko gëmee rekk bokk nga ci moom te dangay daldi am jàmm ak yàlla te it am jàmmu yàlla ji kirist di def ci xolu ñi ko gëm rekk kon mbokki déglukat yi fii lanu yem ak yéen tey njàng mi ñëw ci ñetteelu ndigal li lanu fas yéene sóobu fileek booba su ngeen amee ay laaj bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis wala ngeen bind nu ci sunu adresse électronique maanaam yoonu njub arobase sentour point sn yoonu njub maanaam y o o n u n j u b at sn na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li mu wax ne wattu leen seen bopp ci xërëm